mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen di dalal ci seen chaine d'information leader Sénégal 7 TV di am di leen di recevoir ci sunu entretien spécial bi ñu leen jaglal tey l'honorable député Bakary Diédhiou Bakary Diédhiou nekk membre du parti PASTEF au pouvoir nekk en même temps député euh, du groupe parlementaire Yewwi Askan bi moom la ñuy dalal tey ci entretien spécial bi ñu leen jaglal tey comme ni ñu ko waxee tey fas yéene ànd ak moom ci li gën a fës ci actualité nationale rawatina nag actualité politique bi waxtaan ci li nga xamante ne moom moo amoon samedi passé à l'Assemblée nationale notamment le débat d'orientation budgétaire bi nga xamante ne dañ ko mujj annulé gannaaw bi également am na yeneen développement yoo xam ne am na ci mbirum débat d'orientation budgétaire boobu ak fermeture session euh, ordinaire Assemblée nationale it euh, li nga xamante ne moom mooy descente bi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko euh, def na ko ca euh, Colobane def ko également fi nga xamante ne moom mooy la plan la plage Anse Bernard yooyu yëpp nag nañ ci waxtaan ak sunu gan Bakary jeeju mais laataa ñuy dugg nag ci waxtaan bi honorable député Bakary jeeju dañ lay bàyyi nga nuyoo internetu Sénégal seet lay seetaan actuellement. voilà lay fay d'abord ci sa nuyoo bi. Mm-hmm. Euh, di rafetlu sa invitation. Mm-hmm. di profito également sa antenne bi pour mun a nuyoo les internautes ñuy seetaan Sénégal 7 mu nekk plateforme très suivie à travers euh, le monde entier. Mm-hmm. Euh, di profito également ci sa antenne bi ma nuyoo. Euh, ma base affective dans le département de Bignona. Mm-hmm. di nuyoo waa Kër Mbaye Fall ñu nga xamante ne fa laa yeewoo fële ci commune mbaaw Euh, di nuyoo le président de la république Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre di leen ñaanal vraiment jàmm. Mm-hmm. yàlla ñu jig réew mi. Mm-hmm. merci beaucoup honorable samedi la woon defe naa wax naa ko sànq ci présentation yi mooy euh, li nga xamante ne moom mooy le débat d'orientation budgétaire. Mm-hmm. Euh, c'était très attendu à l'Assemblée nationale à l'arrivée gis nañ ne. mujj nañ ko annulé ci ay base yoo xam ne xëy na ñenn ñi séntuwuñ ko woon ñu jàpp ne kii di premier ministre Ousmane Sonko euh, amoon na trois mois euh, d'après li nga xamante ne euh, moom la loi bi tëral justement pour mun a ñëw fi nga xamante ne moom mooy assemblée nationale daal di fa tenir li nga xamante ne moom mooy la déclaration de politique générale mu mel ni à la veille la def benn poste di toog kii nga xamante ne moom mooy Guy Marius mi ko interpellé woon Mm-hmm. ne ko jarul muy ñëw fa nga xamante ne moom mooy assemblée nationale ndaxte tout simplement le réglement intérieur de l' assemblée nationale a été falsifié donc sur la base de ça Ousmane Sonko jàpp ne euh, du mun a ñëw tant que la carence n'a pas été réglée autrement dit ñu daal di euh, euh, régler li nga xamante ne moom mooy le réglement intérieur de l' assemblée nationale ba delloo ci disposition yi nga xamante ne moom moo war a tax le premier ministre ñëw taxaw alors euh, l' annulation du débat d' orientation de la fermeture de la session ordinaire ngeen nekkoon fa en tant que député bokk ci parti Pastef au pouvoir mais également bokk ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nan ngeen ko dundee. waaw li may njëkk a def mooy ñaawlu l'annulation du débat d'orientation budgétaire. Mmh. parce que le débat d'orientation budgétaire lu am am solo la dans la marche de notre pays. Mmh. parce que le débat d'orientation budgétaire à la limite c'est les députés et le peuple sénégalais n'est-ce ñoo ko moom euh, le gouvernement day définir les grandes orientations li ñu jàpp ni dans la période deux mille vingt cinq deux mille vingt sept ci foofu la ñuy sukkandiku pour mun a développer suñu réew maintenant ñoom buñ ko tëralee ba pare dañ ko yebal euh, assemblée nationale assemblée nationale war a saytu naan waaw lii baax na lii peut-être que jàpp nañu war ngeen ko mën a euh, yokk parce que parce que parce que par exemple su ma dëkkee man ci département de Bignona hmm. su may wax mën naa ñëw mën naa ne le ministre des finances waaw euh, budget bi ni ngeen defee orientation bii nii baax na waaye man dama jàpp ni pour ngeen mun a jël effectivement en charge je donne un exemple par exemple lu mel ni faire fonctionner le enfin le barrage d'Afignam hmm. wala construire la boucle du Fogny bi ñuy xaar damay naa man jàpp naa ni war ngeen mun a yokk euh, euh, ligne bii nii pour que ngeen mun a jël en charge effectivement les problèmes des des sénégalais mm-hmm. kon boo xoolee gouvernement moom li mu waroon a def def na ko ba pare mm-hmm. léegi l'Assemblée nationale c'est le lieu par ex excellence le plus démo démocratique et le plus euh, égal c'est le Sénégal en miniature mm-hmm. parce que boo xoolee l'ensemble des départements dañoo nekk Assemblée nationale département bu nekk au moins lu mu tuuti tuuti am na fa benn représentant mooy député. Hmm. kooku mooy le porte-parole de son département du peuple et du Sénégal parce que du un député tu ne vas pas seulement parler des problèmes de ton département kon ci débat d'orientation budgétaire bi. la Sénégalais yi di xam fan la gouvernement bi bëgg a dem également avec euh, le budget parce que on fait hmm. une programmation pluriannuelle hmm. fii dañu waroon a discuter sur la programmation pour l'année deux mille vingt cinq bu deux mille vingt sept kon loolu yëpp ñu xañ ko askan bi les députés sont privés de parole le peuple ne sait pas exactement les orientations pour deux mille vingt cinq deux mille askan wi justement mais euh, foofu damay naan damay naan damay naan le président de l'Assemblée nationale c'est le principal responsable Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop parce que euh, dañu convoqué euh, le débat d'orientation budgétaire pour le samedi mhm. euh, vingt vingt neuf mhm. à neuf heures trente Euh, à la suite d'une réponse que le président Ousmane Sonko a adressée au, euh, à l'honorable député Guy Marius Sagna mhm. ci la ñu sukkandiku pour woote beneen ndaje du bureau de l'Assemblée nationale mmh. les députés convoqués à 9h30 ici on convoque le bureau à 9 mhm. ñu dem tëju réuniru n'est-ce pas ñu ne dañuy boycotter l'équipe bi sous prétexte que président Ousmane Sonko respecté wul institution parlementaire léegi kon dañuy boy boycotter le débat d'orientation budgétaire mm-hmm. mais une violation encore parce que euh, ñun ñu ngi yoon toog man par exemple bokkuma ci bureau de l'Assemblée nationale mm-hmm. te a ñëw préparer euh, débat d'orientation budgétaire bi nu mu ko waree. Mm-hmm. ñu war a ñëw jàkkaarloo ak euh, euh, ministre des finances bi. waxal askan bi. ñu xañ ñu ko et pire mm. on n'est même pas venu nous informer de manière officielle mm-hmm. par exemple comme président de l'Assemblée nationale ñëw toog wax ak député yi ne leen lii moo tax ñu annuler le débat d'orientation budgétaire mais mais nee nañ la d'après ci explication yi nga je vous je vous prends au mot bu ma ko permettre nee nañ Ousmane Sonko euh, pondre na benn poste boo xamante ne à travers sa page Facebook Euh, mën nañ ci sukkandiku ba jàpp ne respecté wul. ainsi waaw mais xam nga parce que am ngeen information. non non attendez xam nga euh, ñun ñu ngi toog en tant que député. Mm-hmm. Euh, les journalistes vous autres vous étiez là-bas. Mm-hmm. pour relayer les informations mhm. mais le président de la de l'Assemblée nationale bu jëlee dogal bu mel nii avec son bureau là mhm. ils ont l'obligation de venir parler aux députés en parlant aux députés ils mhm. parlent également au peuple mais les Sénégalais sont restés comme ça les gens ne peuvent même pas savoir lan moo xew ba léegi kii maintenant information yi ngay glaner à gauche à droite non moi je pense que Assemblée nationale warul fonctionner nonu président Assemblée nationale dafa war a ñëw toog comme moom moo convoqué député wax leen ni kii compte tenu de nous avons décidé de surseoir waaye mmh. defu ko mmh. les gens ont glané des informations à gauche et à droite est-ce que noonu la war a demee respecté le président de l'assemblée nationale mais est-ce que jàpp nga ne Ousmane Sonko également en personne en tant que premier ministre mi ñu doon xaarandi mu ñëw à l'assemblée nationale tenir une déclaration de politique générale poste bu mu def à la veille de ce débat d'orientation budgétaire est que mën nañ jàppale Ousmane Sonko également ku yi la respecté assemblée nationale quand on sait Euh, ñu bëri li mu bind menace lañ ko jàppee. non du menace Ousmane jàpp ne sax su fekkee euh, l'Assemblée nationale euh, par le biais du président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop bu jëlul ay dispositions justement régler défiance boobu nga xamante ne ñoom jàpp nañ ni dañu falsifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. du ñëw def li nga xamante ne moom mooy sa DPG à l'Assemblée mais day dal di taxawal un jury composé de plénipotentiaires est-ce que kooku tamit mën nañ jàpp ne ku respecté député la ku respecté Assemblée nationale nga ñun lu ñu woote à travers les nouvelles autorités mm-hmm. mooy jub jubal jubanti mais justement loolu moo war a mën a tax mu ñëw à l'Assemblée nationale ce pas un vain slogan mm-hmm. nekkul slogan boo xamante ne dañ koo wax nii nii nii rek mm-hmm. buñ ne jub jubal jubanti loo xamante ne lu jaaduwul il faut ñu def en sorte que ñu teg les choses dans la dans la. mais lan moo jaaduwul foofu justement honorable lan moo fa jaaduwul xam nga foofu euh, euh, article cinquante cinq de la constitution de la constitution oui. Hmm? Mhm. Mhm. Euh, kii bi réew mi mhm. dafa ne. Euh, bu bu ñu tabee le premier ministre. Mm-hmm. dafa am obligation dem assemblée nationale. Mm-hmm. def sa déclaration de politique générale. Mm-hmm. pour orienter donner les grandes orientations en matière de politique n'est-ce pas du. du gouvernement. n'est-ce pas d'accord nañu foofu. mais euh, article cinquante cinq. fixé wul les modalités. nan la yi yi war a demee. loolu dañ ko bàyyi règlement intérieur assemblée nationale. règlement assemblée nationale intérieur assemblée nationale moom mooy wax euh, durée bi président de la république euh, du bi premier ministre warut a mm. pour dem defi sa mm. déclaration de politique générale. Mm. et nan la ko war a defee. maintenant foofu bu ñu changé euh, en deux mille dix neuf mooy bi ñu génnee supprimer le poste de premier ministre. Mm-hmm. assemblée nationale. Mm-hmm. dafa daal di seppi article yi wax ci premier ministre. Mm-hmm. article yi wax les questions de motion de censure et cetera. mais disposition yi disposition yooyu. Mhm. maintenant il se trouve que le premier ministre est absent du règlement intérieur de l' assemblée nationale. Mhm. Ah, maanaam assemblée nationale reconnaîtrul xamul premier ministre. Mhm. est-ce que au nom du jub jubanti jubal jubanti. le président le premier ministre xaaral xaaral xaaral. xaaral bul dagg sama bul xamul premier ministre. mais constitution xam na ko honorable parce que ah, d'après ah, xam na ko mais constitution da a dem da nga war a dem assemblée nationale défi sa déclaration de politique générale. Mhm. Mhm. sans mhm. le président de la république il dit au nom du jub jubal jubanti. je pense bien foofu la ko euh, jàppee ah. dañu war a d' abord régler le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mais pourtant en décembre 2024 bi ngeen di euh, l'ancien premier ministre mu ñëw justement yéen a dugaloon sa la motion de censure le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi soulevé woo leen greffier mais pourquoi non il faut pas dire que soulevé wuñu il faut pas dire à plusieurs reprises hmm. sur le fait que le règlement intérieur n'est pas est falsifié hmm. n'est-ce pas mais maintenant boo nee ñun ñoo dugal la motion de censure sur la soo ma posé question non si naa bàyyi nga développé mais je vous soulève may may ma développé mais dinaa wax dinaa wax li ngay wax noonu mhm. xam nga par exemple ñoom ñoom seen jëm bopp xam nañ ni ki le règlement intérieur est falsifié mhm. maintenant ñun ñoom dañu bëgg ñun peut-être que ñu naan puisque le règlement intérieur est falsifié peut-être que ñun dañuy guedde n'est-ce pas boycotter ñu appliquer la politique de la chaise vide mhm. mais ñun dañu ne duñ ko def malgré le fait que xam nañ ni ki la, euh, le règlement intérieur est falsifié l'Assemblée nationale est dans l'illégalité en faisant venir le Premier ministre Euh, Amadou Ba ma taxaw foofu sax Guy Marius Sagna avait écrit une question en décembre 2022 pour dire que à Amadou Ba de ne pas venir à l'Assemblée parce que tout simplement Assemblée nationale reconnaître euh, euh, Premier ministre maintenant Amadou Ba a fait des forcing il est venu parce que ñoom ñoo nekkee il a fait dans l'illégalité n'est-ce pas maintenant que Euh, le président euh, comment s'appelle le euh, Amadou Ba ñëw na est-ce que ñun dañuy ne dañuy boycotter même ñun bu ñu boycotter ñoom ils vont continuer à faire le travail parce que ñoom ñoo am la majorité mécanique ñoom li ñu bëggoon mooy pousser ñu pour ñun ñu développer la politique de la chaise vide loolu duñ ko def la chaise vide ça n'arrange pas moo tax ñun ñu toog parce que dañu war a waxal askan wi xaaral mhm. il faut que ñu xamal leen ni ki le règlement intérieur bii nii baaxul mais ils ont forcé pour faire venir le premier ministre ñun dañuy toog waxal askan bi n'est-ce pas et s'il y a lieu faire la motion de censure comme ni ñu ko defee woon mais li nga ngeen xam ne y l'illégalité oui dans le cadre du règlement intérieur ngeen dugal une motion de censure parce que mais gis nañ ko fa ba tàyyi vous n'êtes pas d'accord sur am na alors léegi bu ngeen dugalee une motion de censure mu jàll alors vous allez pouvoir destituer comme ça un gouvernement dans l'illégalité oui parce, que donc dans ce cas non parce que ñoom ils ont accepté de nous pousser ils nous ont forcé hein. nous on est contraints d'aller bu ñu demul le peuple sénégalais ne saura pas ce qui se passe dans le débat d'orientation bi ou bien la déclaration de politique générale ñoom mën nañu ñëw Euh, nice nice sal waxal le premier ministre lu ko neex hmm. n'est-ce pas ñu dem seen yoon. mais nous aussi dit que non duñu duñu duñu gedd duñu boycotté. lan moo tax la question que beaucoup de gens se posent depuis euh, l'éclatement de cette affaire là. Hmm. Euh, la déclaration de politique générale yéen a soulever ay irrégularités côté règlement intérieur donc de je pense que assemblée bi ñu ko installé le septembre 22 22 la 22 la. 2022 14 septembre. voilà 14 septembre n'est-ce pas. 2022 2023 mmh. deux ans jour pour jour yéen a ngi liggéey ci illi euh, illégalité. bu mmh. fekkee mën nañ sukkandiku ci li ngeen wax. nan ngeen mën a accepter loolu est-ce que yemoo leen ñooñu nga xamante ne. non mais xam nga xam nga yow boo yow boo yorul boo yorul la décision. Mmh. tu ne peux que faire des gymnastiques par rapport à la situation qui est là. Je vais te dire une chose. Xam leen ñu leen vous avez été Non, on n'a pas été complice. Le peuple sénégalais nous a suivis. On a dit que le règlement intérieur à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale sur les plateaux de télévision, nous avons pointé dañu duut baaraam n'est-ce pas le règlement intérieur pour dire que le règlement intérieur bii nii baaxul. Mamadou Lamine Diallo hmm. a même adressé président de l'Assemblée nationale. Hmm. Et le président a dit que euh, il prend acte, il va donner suite euh, à sa demande. Il ne l'a jamais fait. Le, le j'ai dit tantôt que Guy Marius Sagna avait écrit une, également une correspondance à Amadou Ba. Maintenant, ñoom xam nañu ni ki le règlement intérieur bi nii ñoom ñoo ko gën a xam. et falsifié. waaye baaxul. waaye li ñu bëgg li ñu bëgg mooy. Mm. Euh, xam nañ ni ki règlement intérieur bii nii baaxul. Mm. mais on va pousser ces gens-là à nous suivre malgré. le fait que règlement parce que mënuñu ci dara ah ñun lu ñu mun mooy dénoncer mais ki war a woote pour ñu defaraat règlement assemblée nationale règlement intérieur mooy le euh, mooy le président de l'assemblée mais il il est au courant il sait mais il refuse n'est-ce pas de de de de Bakary Diop ci règlement intérieur boobu euh, la ñu voté la loi d'amnistie je pense bien bu baaxul bi ngeen ne baaxul mhm. te defe naa moom moo génne Ousmane Sonko génne Bassirou Diomaye fay loolu yëpp na ngeen koy réglé. non xam nga bu ñu nee euh, bu ñu nee baaxul. Hmm. Euh, nekkul ne. Euh, dara baaxu ci mais c'est-à-dire que am na loo xamante ne dañ ko seppi ci réglement intérieur ba pare léegi ñu ciy wax alors que loolu nakkul ci règlement intérieur foofu la ñuy wax certains articles mais mais pourquoi pas vraiment si tant est que parce que gis nañu également Ousmane Sonko ci euh, leeral yu mu indi mu jàpp ne actuellement yor na li nga xamante ne moom mooy sa déclaration de politique générale. pare donc euh, pare na voilà donc euh, si je vous au mot. Mhm. est ce que mënul woon sukkandiku ci li nga xamante ne moom mooy la constitution. justement pour fay coow li parce que du point de vue de la hiérarchie des normes mhm. juridiques constitution yi moo féete règlement intérieur bi ngeen arc-bouté wu ci kaw. Mhm. jaaduwul woon mu sukkandiku ci loolu rek dem def ko comme ay ñooñam ñi fi jaar parce que y a beaucoup d'anciens premiers ministres quand même qui commencent à à, s'inviter dans le débat on a vu Abdoul Mbaye wax na ci Mimi Touré xëy na wax na ci ñooñ ñëpp ay anciens premiers ministres lañ Amadou Ba également wax na ci muy Amadou Ba. Amadou Ba loolu la mënoon a wax. Ah, mais mais mais Abdoul Mbaye. nga xaaral il est de l'opposition gis nañ position Abdoul Mbaye ak Amadou Ba xaaral ñu avancé bokkul mais là également moom lu muy cautionné mooy que Ousmane Sonko dem sukkandiku ci li nga xam ne moom mooy la constitution. xam nga en son article cinquante cinq dem def ko. xam nga en tant que journaliste. Mhm. yow waruloo sa d'accord. que lu mel ni assemblée nationale. Mhm. ñu fay jalgati règlement. non non non waxuñu dañ ci d'accord mais est-ce que warul sukkandiku c'est juste une question. dégg naa dégg naa li nga wax. Mhm. mais xam nga euh, ñun dañu woote rupture. Mhm. lépp loo xamante ne jaaduwul ah ñun dañuy duut baaram loolu pour ñu defaraat ko le président Ousmane Sonko. il peut faire la sa déclaration de politique général comme la Amadou euh, Amadou Ba l'a fait. mais il se dit que institution bu mel ni assemblée nationale da ko war a dimbale mu nekk dans la norme. est-ce que ragalul la que ça a été très tôt agité également. Euh, le président le président le président Ousmane Sonko lan lay ragal ci motion de censure amoo leen majorité de honorable mais euh, mooy lan euh, ñu dissoudre le gouvernement nest pas loolu nga bëgg a ah mais loolu bu ñu ko dissoudre hmm. bu ñu defee seen motion de censure parce que ils ont une mécanique une majorité mécanique nest pas mu jàll nest pas hmm. mais le président de la République pouvait lui faire encore n'est-ce pas mm -hmm. et il peut même reconduire également son gouvernement pourtant ne nga sànq assemblée peuple fétoga c'est le Sénégal euh, le Sénégal en miniature oui le Sénégal en mais on veut éviter le pays à ce jeu-là ce jeu-là boo xamante ne qui n'honore pas l'institution parlementaire assemblée nationale mm -hmm. su bëggee vraiment euh, yëf yi jaar yoon mën na wootee ci fan yu gàtt pour ñu dugalaat le euh, les, les articles les concernant le premier ministre mm et en le faisant ça ne lui coûte absolument rien et en ce moment le président Ousmane Sonko day waaxu si ñëw assemblée nationale. Mhm. mais mais problème bi fu mu nekk. ñoom seen jëmmu bopp xam nañ ni ki règlement intérieur bi dañ ko euh, jalgati. maintenant maintenant bu ñu wootee pour defaraat ko askan bi day xam ni ki donc ñii donc. ci euh, ay ay manœuvre la ñu nekkoon. Mhm. ci assemblée nationale bu falsifier le règlement intérieur mais il faut dire que sous le règne le règne de Macky on nous a habitués au niveau surtout de l'Assemblée nationale à une falsification à un non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale yow yaa ngi rappelé wu suñu premier jour à l'Assemblée nationale xeex bu fa amoon mais xeex bi lan la il ont voulu faire voter euh, ñi nga xamante ne dañ leen tàbb ministre pour ñu voter ñu bokk ci euh, yow da nga nekk en même temps ministre. Mm-hmm. nga nekk en même temps député. donc dafa mus a am. l'exécutif et le législatif nest pas. Mm-hmm. dañoo séparé au nom de la séparation des pouvoirs donc déjà dès le premier jour. Mm-hmm. ils ont montré que ñoom parewuñu pour régler le rég pour euh, topp le règlement intérieur mais dañu pare pour def ñoom lu leen neex. ñun ñuy xeex. pour woon askan bi ni ki ñii lii ak lii ak lii la ñu def. donc depuis le premier jour. loolu moo ñëw ba ci règlement intérieur lu ñu dindi article parlant du poste de premier ministre mm-hmm. mais puisque le règlement intérieur ne reconnaît pas le, le premier ministre mm-hmm. pourquoi mmh. le premier ministre va venir à l'Assemblée maintenant mmh. le président Ousmane Sonko a dit d'ailleurs mm-hmm. qu'il n'exclut pas de venir il dit il donne Euh, euh, comment s'appelle un délai à l'Assemblée nationale mooy jusqu'au juillet te ñu jàppee ko nag menace ko jàpp waaw non du menace du menace parce que passé xam nga boo nekkee boo nekkee dans l'illégalité ñu ne la may nañ la euh, une semaine wala ñaari semaine pour nga defaraat sa règlement intérieur mm-hmm. yow soo bañee defaraat sa règlement sa règlement intérieur mooy yow yaa bëgg vraiment endi léegi euh, passe passé ce délai là euh, une crise latente qui n'est pas une crise passé ce délai moom Ousmane Sonko buñ ko reprendre waaw nee na moo day wàcc ci mbedd mi dem defee ko foofu mais loolu fu muy tegu ah fan lay tegu ban loi moo ko wax ci réew mi constitution la wala lan dem composé euh, devant un jury composé de plénipotentiaire dem na mm-hmm. sa ba ne qualité boobu mooy ëpp seen qualité yéen député yi defe naa loolu moom xas la mm-hmm. après yéen a ci mën a tontu vous êtes élu euh, euh, les Sénégalais vous ont fait confiance non xas yóbbu leen à l'Assemblée nationale du waaye dafa bëgg askan bi yëpp xam ni ki règlement euh, assemblée nationale lu muy doxee

présenter sa déclaration de politique à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale waaye ouais. Assemblée nationale mayu ko la possibilité mu mun a ñëw foofu wax mais am na ñu ko def sénégalais ouais. ñu ko def ils l'ont fait dans l'illégalité ouais. oui mais lu il se dit que lu mu wootee jub jubal jubanti honorable loolu bu ko defee ci mbedd mi. xaaral ce n'est ce n'est pas de l'illégalité ci mbedd bi. ne warul nekk ci mbedd. mais si c'est pas à l'Assemblée nationale honorable il faut dire les choses telles quelles si dem na defi ko feneen. fu mu ko mënta defee que ce soit à l'université il faut ngeen wax ñu également. mais xam nga lu ci lu ci am solo lu ci am solo mooy. la déclaration de la politique générale est un exercice constitutionnel. oui mais c'est réglementé aussi. réglementé oui. mais fi nga ko war a defee. Mm. su dee foofu dañoo tëj bunt bi. te yow nga xam ni que da nga war a wax ak askan bi. Mhm. da war a wax askan bi tëj ñu bi. parce que ah? justement ñu ngi pour mu ñëw tëj ñu bunt bi honorable non mais tëj nañu bunt bi mooy mettre ñu la possibilité pour mu ñëw foofu à l' assemblée nationale en respectant euh, les normes prescrites par le règlement intérieur léegi il se dit comme man askan bi laa war a waxal. Mhm. dinaa def sama déclaration de politique générale. Euh, il parlera au peuple sénégalais. Mhm. mais également aux partenaires moo tax mu. junju tamit la présence des partenaires interna internationaux. Hmm. mais mu wax aussi un jury d'universitaire n'est-ce pas. mais est-ce que ça serait légal c'est ça ma question fan lay sukkandiku d'un point de vue juridique wala euh, ci constitution yi. parce mais comme li ma comme comme li ma la wax boobu ba léegi. ma question mooy on a travaillé depuis deux mille vingt deux bi ñu ñëwee à l'Assemblée. Hmm. ci règlement boo xamante ne euh, falsifié nekkuñu woon dans la norme.

d'avoir un lieu pour s'adresser plus habilité quand même pour le sénégalais à travers son ses représentants ouais. maintenant si le président euh, de l'institution parlementaire ne lui facilite pas la tâche mm. il se dit que par A ou B moi je vais parler au peuple sénégalais je peux aller dans un grand hôtel de la place n'est-ce pas ce serait légal légal c'est ce qui est écrit quelque part mais ce qui n'est pas écrit c'est illégal est-ce que le président de la euh, est-ce que le premier ministre léegi dafa war toog ni parce que tout simplement assemblée nationale dafa tëj bunt yi. Hmm. mu xam ni kii la constitution luy demande de faire une euh, une déclaration de politique générale ñii ne du ñu ubbi. il n'a pas la possibilité de forcer au niveau de l'Assemblée nationale moo tax mu ne leen donc li ma bëgg mooy ñu def la chose dans la légalité hmm. defaraat leen lu réglement intérieur de l'Assemblée nationale hmm. may naa leen fii ak 15 juillet ngeen euh, defarwaat honorable le 16 le 16 mai Ousmane Sonko def na communiqué euh, jagleel ko ay ministres pour ñu jox ko ay seen contribution contribution yu jëm ci mbirum déclaration de politique générale boobu ne leen avant le 24 mai. Mmh. justement pour mu mun a tam taxaw ci assemblée nationale parce qu'il attache un prix à cet exercice la alors il accorde beaucoup d'importance alors à une semaine de cet exercice la mu jëlaat beneen yoon qu'est-ce qui a changé entre temps est-ce que xamuloon li ngeen di wax dem ba ci biir. Euh, am ci tiitaange lan la lan la Ousmane Sonko qui était d'accord qui était apparemment très pressé par rapport la déclaration de politique générale ak motion de censure bi ci mën a am il y a la motion de censure waaw yow motion de censure wax nañ ci sànq ñoom ils ont une majorité mécanique mm-hmm. mën nañu def motion de censure peut-être que mu jàll mais le président de la République le reconduire loolu donc amul tiitange et dëgg naa ñeneen ça dans dans par presse interposée ñu naan le le président de le premier ministre Ousmane Sonko a peur de venir à l'Assemblée nationale un lieu qu'il connaît très bien l'Assemblée nationale hmm. un lieu où Ousmane Sonko a excellé li tax sénégalais yi gën a xam le président Ousmane Sonko taxawaayam. ci biir assemblée nationale yow di nga naan le président de la le président Ousmane Sonko dafa moom de. yombul woon ci il a tenu tête. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà c'est l'Assemblée nationale d'ailleurs qui a constitué à ah, qui a révélé mm-hmm. davantage le président Ousmane Sonko. une dernière question. oui pour cette page là. ci communiqué bi mu njëkk a def le 16 mai. ne dafa yàkkamti dem taxaw ci assemblée. bien sûr li mu mujjee wax ni lan moo changé ci diggante bi. mooy mais diggante bi mooy il s'est dit que peut-être en tant que euh, premier ministre il doit pousser et aider l'Assemblée nationale à vraiment être dans une position qui l'honore parce que li assemblée nekk ni vraiment ça ne l'honore pas as bu ñu demee ba un haut lieu comme l'Assemblée nationale ay nit mën nañu toog dans un coin ñu def naka su dul noonu di engagé le peuple sénégalais parce que attention c'est extrêmement dangereux su fekkente ne mën ak yow ci biir assemblée nationale lañ nekk mën nañu dem toog benn gox nest pas Euh, falsifier am lu ñu dindi ci règlement intérieur di engager le peuple sénégalais c'est extrêmement ah ñan ñoo def loolu mais ñu ko def ñoom xam nañ seen bopp mooy ñan honorable foog non ça ne peut être que les députés de la majorité euh, président de l'ancienne majorité présidentielle mm parce que ñoom ñoo nekkoon euh, au pouvoir ba avant avant 2022 mhm. ñu ñëwaat parce que le poste de premier ministre a été supprimé en 2019 bu ñu ko indiwaatee en 2021 nest ñoom toujours ñoo nekkoon euh, ñoo amoon la majorité. Mm-hmm. kon ñoom ñoo ñoom ñoo tëju. Mm-hmm. ñoom ñoo tëju. Mm-hmm. dem falsifier le règlement intérieur di engager le peuple sénégalais parce que sànq maa ngi lay naan assemblée nationale mooy le lieu le haut lieu le plus représentatif. les l' ensemble des départements du Sénégal sont représentés au niveau de l' assemblée nationale n'est-ce lépp lu ñu fay wax ci assemblée nationale c' au nom du peuple sénégalais mais c' extrêmement dangereux ay ñaar ñetti nit n'est-ce dem tëju di def naka su dul noonu di engager le peuple sénégalais loolu ñëpp ko war a ñaawlu. ñëpp a ko war a ñaawlu parce que si n'y a pas problème. on ne se rend pas compte mais imaginez ñu def benn affaire boo xamante ne mu indi un grand problème au euh, au, Sénégal. c'est en ce moment qu'on saura que euh, caaxaan baaxul boo nekkee à certain niveau de responsabilité waruñu ko def li lu ñaaw la. moo tax le président Ousmane Sonko il est peut-être dans une logique d'aider l'Assemblée nationale à se conformer mais, à la norme mais quitte même à créer quand même une crise institutionnelle parce que ñu bëri jàpp nañu ci lañ jëm. quelle crise parce que ci ñaari camp yi que ça soit du côté du premier ministre. Euh, que du non côté... il n'y a pas de crise institutionnelle boo nee crise institutionnelle mu mel ni. Euh, mu mel ni mu mel ni l'exécutif est paralysé. Mais, mais, le judi le judiciaire est paralysé. non c'est l'Assemblée nationale. Mm-hmm. qui a des problèmes en son sein. on dit vous êtes un haut niveau de responsabilité facilement ah ça aurait pu être réglé facilement mais mais le président Ousmane Sonko loolu la bëgg mu ne mais assemblée nationale mais woote leen ngeen defaraat seen kii bi d'ici le 15 juillet ma ñëw buñ ko buñ ko bëggee suba suba suba suba dinañ ko def parce que ñoom attendez mhm. ils ont souvent fait beaucoup de choses euh, avec ce qu'ils appellent euh, euh, je ne sais pas le mode fast track gis nañ fii ni euh, ñu woote à des choses yoo xamante ne dans les ci diir quarante huit heures ñu bëgg mu jàll. vous voyez donc le président de l'Assemblée nationale d'ailleurs Euh, ce qui a suscité le, report du débat d'orientation budgétaire mmh. dañu convoqué Assemblée nationale 9 h mais moom la veille ci guddi gi à la suite de nous de notre conférence de, de notre point de presse mmh. donc du, du poste du premier ministre mm. mu wootewaat beneen réunion du bureau de l'Assemblée nationale pour neuf heures lu gaaw la mm-hmm. donc celui qui peut convoquer deux réunions en <laughs> l'espace d'une de temps mm -hmm. mais kooku war na mun a woote une réunion rapidement pour ñu defaraat le règlement intérieur eh, de l'Assemblée nationale yaa ngi joxoñ baaraam la ñuy xaar pour que vraiment nous soyons baaramu tuuma la majorité parlementaire mais ñoom la Abdou a ak euh, ñi mu c'est le président. du l'opportunité à un de s'adresser à lui c'est quoi qu'on puisse dire aussi. il aurait président de groupe parlementaire quoi qu'on puisse dire. voilà donc euh, surtout le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. actuellement xam nga majorité n'est pas la qualité hein. mais attends majorité n'est pas la qualité. la qualité on la trouve beaucoup plus. la qualité du la qualité ça bi peut-être ak ñeneen. de l'opposition et les non alignés. c'est aux Sénégalais de juger les Sénégalais c'est ce qu'ils disent. Euh, mais c'est aux Sénégalais c'est ce qu'ils disent. c'est aux Sénégalais de juger mais là où je voudrais en venir c'est que lu bëri yaa ngi koy xam parce que y groupe parlementaire qui est là et peut-être les non alignés Abdou Mbow en tant que président groupe parlementaire ak ñi mu àndal annoncé nañ plan de riposte par rapport ak euh, fi nga xamante ne foofu la mooy la motion de censure ñoom nëbbu ko kenn ils l'ont brandi ñu bëri jàpp nañ ne loolu moo tax sax ba Ousmane Sonko di di l'autre chose mhm. c'est la suppression de l'article bi nga xamante ne moom moom mooy Euh, nan nga gisee. ñu ne dañu ko waaw ñu ne dañu bëgg a def woy euh, des amendements pour que. mais xam nga foofu c'est ridicule. ah bon c'est ridicule parce que euh, quelques mois derrière. Mm le président Macky Sall. Mhm. bëggoon na laal article boobu pour que mu mun a tas assemblée nationale à tout moment. Mhm. du dëgg. ñan ñoo ko fekki palais di ko naan loolu baaxul. ñen la ñoom la. Hmm. ñoom ñoo dem palais. mais mais waxtaan déglu ma ñoom ñoo dem pale côté de ma groupe parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar moo dem pale waxtaan ak président de la république naan ko lii euh, baaxul nangam nangam ba finalement président de la république dellu ginnaaw ñoom ñooy parce que tout simplement ñoom xam nañu bu ñu tasoon euh, assemblée nationale ñu naroon a dem élection anticipée ñu bëri ci ñoom du ñu ñëwaat xam nañ ko. Mhm. parce que y avait la force montante de PASTEF léegi ñoom Macky Sall wàcc nañu. ñoom ñoo ne encore à la suite nous de notre point de presse parce que c'est nous qui faisons l'actualité ouais, ouais, mais et de la déclaration du président euh, la sortie du président euh, Ousmane Sonko ñu ne léegi ñoom dañuy bëgg a def ay exercice pour que président de la République war a mën a tas assemblée nationale à tout moment mm-hmm. léegi ñoom <laughs> seen intérêt la ñuy xool wala est-ce que est-ce que c'est pas du fait que le vent a tourné parce que auparavant ci li nga wax noonu effectivement euh, président Macky Sall moom moo bëggoon dissoudre euh, mm. l'Assemblée nationale mais ñun li ñu gis yéen dès que la mesure de motion de censure a été brandie Euh, du côté de du pouvoir actuel. non ça parce que euh, depuis le débat. dans leurs menaces avec oui les menaces. avec mhm. Moustapha Sarré. Mhm. on entend motion de censure bu Sonko Ousmane Sonko ñëwee à l'Assemblée nationale on va introduire euh, une motion de censure est-ce que. yow tu es dans le paysage médiatique. yow Sonko da lay nuroo ku ragal. non non non mais je Sonko quand même on le connaissait. Mais Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui a le courage de ses idées. Mais plus teigneux que ça quand même. maintenant li ñu gis yéen euh, pour continuer n'est-ce pas que le vent euh, semble tourner jusqu'à ce que actuellement en faveur de qui mais en faveur des tenants du pouvoir actuel ba nga xamante ne seen débat ñoom bëri na li ñu ciy nemmeeku la dissolution de l' assemblée nationale il faut dissoudre il faut dissoudre il faut dissoudre. Mm -hmm. comme le faisait Macky. Euh, est-ce que vous avez entendu le président de la République euh, euh, Bassirou Diomaye di ci wax mais am na ñu koy waxal am na ñu faree si ñoom non est-ce que vous avez entendu ouais. euh, le premier ministre wax ko mm -hmm. jusqu'à présent c'est des spéculations mais ñu faree si ñoom ñu ngi koy wax ñu faree si y compris Abbas Fall même waaw il est député à l'Assemblée nationale. loolu la wax ba waaw dëgg la mooy wax affaire dissolution pour ñu oui c'est son avis qu'il a donné. Ouais. c'est son avis qu'il a donné. Mm-hmm. mais nous tous on n'a pas peur de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. nous on sait qu'il y a un. d'accord nga pour ñu dissoudre ko pas. Assemblée nationale. Ouais. Euh, sur ce qui se passe là. parce que ñii ils ne sont sont prêts à tout faire pour bloquer le fonctionnement des. euh, de de, de l'exécutif. Mmh. Moi je dis que ils sont en de donner un fond de dossier au président Bassirou Diomaye Faye. Autrement nga bëgg a parce que li ñuy wax. Hmm. dañuy xool Ousmane euh, Bassirou Diomaye Faye bu ko naree jël euh, acte de dissolution de l'Assemblée nationale. Mmh. il faut que mu sukkandiku ci fenn pour mun a waxal wax au peuple sénégalais. Hmm. parce que bu génnee par exemple naan au peuple sénégalais ñi ma ko sëkkal. parewuñu pour faciliter ma le travail et que man réforme yu ma bëgg dans le cadre de de mon projet il faut que vraiment ma am une majorité qualifiée qui puisse parler correctement au peuple sénégalais. Mmh. gis ngen ni ki euh, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar majoritaire à l'Assemblée nationale. Mmh. jël na posé na acte bii nii. gis ngeen ni le euh, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar posé waat na act bi nii finalement askan bi day dem ba gis ni. Mhm. Euh, le président Bassirou Diomaye Faye aura raison euh, de dissoudre l'Assemblée nationale parce que tout simplement am na un fond de dossier qui milite en faveur de la dissolution de l'Assemblée nationale. ñoom lu ñuy def nii. Mhm. xamuñu ni kii li tubaab bi di wax scier la branche sur laquelle on est assis. loolu lañu nekk di def ils sont en train de donner au président Bassirou Diomaye Faye un fond de dossier solide. boo xamante ne bu jëlee acte de dissolution de l' assemblée nationale nit ñi dañuy naan. yéex na d' accord nga ci. pour dissolution de l' assemblée nationale mais si ça continue comme ça. Hmm. je suis même prêt ku ñu def ko aujourd'hui hmm. man lan laay tiit ci dissolution de l' assemblée nationale. am na am na ñu am na député yu bëri ñoo xam ne d' ñu ci am non euh, xam nga soo d' accord. Hmm. mooy soo ragalee. ni ki yow par exemple bu ñu tasee assemblée nationale doo am foo jàpp. man amoon naa fu ma jàpp fu dëgër sax. mais yéen sax sant naa yàlla et aussi et aussi déglu ma et aussi déglu ma ñun ñun ragaluñu ñun ragaluñu euh, yeewi askan wi ni ki bu ñu tasee assemblée nationale jàpp naa ni def nañu liggéey bi tax. Euh, ñu war a mun a ñëwaat. mais même bu même bu ñu ñëwul il n'y a aucun problème d'autres vont venir encore beaucoup plus compétents peut-être que et représentés. fan la loi retraite parlementaire bi toll defe naa duggoon na. fan la. la loi sur la retraite parlementaire. Euh, bon foofu. et la base euh, de votre fameux règlement intérieur foofu xam je n'étais pas présent. Mm-hmm. Euh, kii boobu bi ñu ko wootee. c'était à la limite même il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas présents. Oui. moi je n'étais pas présent. mais, mais j'ai entendu comme lettre à la poste. j'ai entendu. Mm-hmm. xam nga man loo xamante ne liiruma ko carrément dégg naa les gens di ci commenter à gauche à droite euh, je n'ai pas encore vu ce document là sur euh, euh, cette retraite parlementaire. Mm-hmm. mais ce ne serait pas mal. que ma gis ko xam exactement qu'est-ce qu'il en est moom mun ci prononcé wu mais moi je ne parle pas souvent sur la base de rumeurs. Mmh. très bien on avance un peu Ousmane Sonko gis nañ ko temps yi dafa mel ni moom bu jógee ci coow dugaat ci beneen actuellement mu ngi woon. Euh, c'est lui qui fait l'actualité il l'a toujours fait. Ah oui mais justement est-ce que loolu tamit euh, ça va militer en sa faveur parce que euh, gis nañ bi mu wàccee fii di Colobane c'est vrai que. de l'autre côté fii ba Kër Massar gis nañ euh, ay déguerpissement yoo xam ne mu ngi fay am. Euh, mu génne en post avant muy déplacé wu dem Colobane jaaree fa dem Anse Bernard. Euh, ni am na ay révélation yoo xam ne war na ko def ca plage Anse Bernard mais laataa muy def muy dem foofu gis na ay série de déguerpissement yoo xam ne ñu ngi koy def te xamul ci ban anam la nit ñi sukkandiku ba di ko def. alors bi mu wàccee Colobane gis nañ foofu ñii ne nañ yuuxu nañ ko yuuxu wuñ ko mais l'un dans l'autre sur la communication est-ce que amul lu mu ci war a xoolaat su fekkente. c'est le ministre de l'Intérieur euh, qui a sorti une circulaire euh, le 7 mai 2024 wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, nekk à la base les mairies pour ñu jéem a engager des opérations de déguerpissement un premier ministre taxaw ne il n'était pas au courant président woo na ma ma wookee mais ànduma ci et tout ça est-ce que côté coordination bi desul communication bi muy def gis nañ ko grand théâtre également ni mu waxee au mai ñu bëri jàpp nañ ne menace la c'est un premier ministre qui pouvoir mais qui même temps Comment il s'oppose là Son Sonko, il fait l'actualité, vous dites qu'il s'oppose. Oui, mais l'actualité, Parce que tout simplement, il est, il est allé à Koloban, il a fait une déclaration qu'il s'oppose. Oui, non. Mais, on dit que le non, président... Non, attendez, est-ce ouais. que, est dafa le président Ousmane Sonko, le, le ministre de l'Intérieur, de Fadjel circulaire Non. déggoo Sonko li mu wax. honorable li mu wax li mu yëgul honorable mën naa jaar ci li mu wax li mu yëgul. Euh, mhm. Euh, le début des dégâts des déguerpissements euh, kii noonu. loolu la ñuy wax mais maintenant xaaral. nee na président woo na ma ne ma yëg nga. wala yëgoo mu ne ko maag yow ci bokk. non non quand le ministre de l' intérieur écrit. Mmh. aux différents euh, collectivités territoriales pour procéder à ça. Mmh. c' est une mesure noble. Ouais. parce que bu ñu xool ni euh, le centre de de Colobane commercial de Colobane. Mmh. n' est pas dans la norme. Hmm. yow boo waree jaar Colobane mais tu as tous les soucis du monde parce que tout simplement nit ñi dañuy occuper même, même la société même, pour jaar ci rond-point bi c'est un problème c'est un mhm. léegi est-ce que euh, ñun dañu war a nekk di calculer euh, beneen euh, peut-être mandat à venir de sorte qu'à laisser les gens dans l'illégalité non mhm. je pense qu'on a besoin d'assainir cet espace-là Colobane nu mu mel baaxul su dee par exemple parce que c'est un monde fou Euh, ñoo fay xëy léegi du ñu jël les mesures idoines pour vraiment les mettre les gens dans euh, dans la norme de faire correctement leur travail calcul yu bëri yooyu moo tax ne ñu bëri daal gis nañu ni ki lii c'est un problème mm-hmm. depuis les régimes antérieurs hein mm-hmm. mais ils n'ont pas eu le courage di jël ay décisions pour mun a saafaral problème boobu mm -hmm. maintenant ñun bu ñu ñëwee ñu gis ni ñu ne lii c'est un problème mm-hmm. il faut que ñu jéem ko régler le ministre de l'intérieur jël circulaire boobu et les services déconcentrés lu mel ni collectivité territoriale ñu war a mettre loolu en œuvre en rapport avec les forces de de de l'ordre mais lu ñu war a saluer la parce que attendez d'abord mhm. xam nga ceux qui sont dans dans l'anarchie mhm. parce que quand on dit marchand ambulant mhm. yow tu entends ce phénomène là ou dans quel pays man daal phénomène boobu pratiquement euh, yàlla def na ni je voyage un peu beaucoup mais doo gis dans un pays sérieux ce phénomène là ñooñu kii occupent illégalement euh, la chaussée mmh. mais ils empêchent les autres ñoo xamante ne dañoo nekk ci cantine yi te ñu di fay régulièrement des taxes il les empêche de travailler mmh. finalement yow yaa ngi ci sa magasin bi keneen mu ngi taxaw sa bunt bi n'est-ce pas di jaay yow loo waroon a jaay ki war a dugg ci magasin bi et kooku il ne paye pas les impôts parce que day jaay di déplacé wu hmm. ñu ne ñii il faut que ñu dimbali leen ñu nekk dans la norme mais lu jaadu la lu ñu war a saluer hmm. maintenant les collectivités territoriales bu ñu jëlee su bu ñu jotee circulaire di euh, di di ministre de l'intérieur mm-hmm. bu ñu waree euh, commencer les choses dañu war a remonter l'information jusqu'au ministre de l'intérieur mu dem jusqu'au premier mu premier ministre mm-hmm. peut-être que c'est ci phase boobu la am faille dans la transmission de l'information parce que l'information daal la kii nii croix euh, mm. croix de transmission la ba moom joti ci woon voilà maintenant bu demee bu premier ministre bi ne mm. euh, yëgul woon euh, kii bi mm-hmm. mais newul ne musul yëg ni ki circulaire bi am na musu ko wax mm-hmm. donc circulaire bi bu amee il est au courant mm-hmm. mais le le début des des épreuves là moom la wane ne on a constaté Euh, des déguerpissements ci dernier temps il m'a été donné de constater. waaw ouais, il m'a été donné de constater. le célèbre phrase là. waaw ouais, c'est ça dans les circulaires c'est mais, côté communication est-ce que su fekkee loolu yëpp am na ni mu koy waxee ak ni muy exposé en tant que premier ministre parce que lu bees la quand par rapport ak euh, premier ministre yi ñu tàmmoon di gis euh, mën naa ci cité ku ci mel ni sa Seck ku ci mel ni euh, Abdoul Mbaye ku ci mel ni Mimi Touré ku ci mel ni. récemment Amadou Ba. Mhm. est-ce que moom moo waroon wàcc foofu ak nu mu duggee ci foule bi. ak nu ah, muy bien sûr côté côté communication euh, bien avant fii muy naan yëguma ñu bëri jàpp ne war naa mën a yëg. Euh, gisoon nañ ko également grand théâtre Ousmane Sonko bul sori qui dans le cadre de ne est-ce que est-ce que moom moo fa waroon a dem. je termine je pense je termine parce que li tax ma posé question bi ñu bëri jàpp nañ ne Ousmane Sonko actuellement ci régime Bassirou Diomaye Faye président de la République moom moo nekk en amont en au centre et partout. alors que y a le ministre de l' intérieur bi nga xamante ne moom moo pondre circulaire xëy na mënoon na ci communiquer. mais le ministre de l' intérieur était mais. oui ministre de l' mais la question que beaucoup de gens se posent est ce que ministre de l' intérieur rek mënuloon dem. Euh, le premier ministre nekk ci leneen mais un premier ministre qu'on voit partout on ne voit pas le président de la République grand théâtre je termine ma question pourquoi moi tu vas me poser plusieurs questions en même temps parce que c'est toujours que c'est toujours dans le même sillage mm-hmm. côté communication ak nu muy exposé woo ba dem ne le ministre de la justice envoyé na ma vidéo ci benn militant bi ñu jàpp ñu bëri jàpp ne yooyu yëpp ay erreur de communication la xëy na les sorties euh, intempestives yi mooy def moo waral yu nu mel ba ñu bëri jàpp ne sax au lendemain de cette déclaration là le ministre de la justice devrait démissionner est-ce que côté boobu warul woon ci euh, a xool ñu organiser la communication. Euh, vous d'abord est-ce que Ousmane Sonko moo waroon a dem Colobane. Mhm. n'est-ce pas. question la. Mhm. man je dis que Ousmane Sonko en tant que premier ministre. dañu war a encourager que les ministres di wàcc ci terrain bi gisal seen bopp le problème des Sénégalais. Mhm. que d'attendre tout simplement des rapports dans son bureau mais loolu c'est à saluer. tu vois beaucoup de ministres de de de, de ce nouveau régime là ñiy wàcc sur le terrain di dem dans les lieux. qui qui concerne le le le le département. Mhm. di saytu yu bëri. kon le premier ministre. boo xamante ne askan bi d' abord da koo bëgg. Mhm. sopp ko lool bu wàccee au niveau de Colobane mais d' abord yow tu as vu man d' ma ci fi nga. wax léegi xanaa moom engouement la ci wut xaaral xaaral engouement la ci non non du loolu je pense que nekkatuñ du loolu du loolu du loolu à dire que l' engouement. da nga koy justifier ci côté askan bi. tu di dis que population bi dafa kontaan ni premier ni premier ministre bi wàccee foofu mais moom li ko tax a wàcc foofu. am nañu moom pour ñëw saytu ko gisal ko gisal ko boppam n'est-ce pas. Mhm. mun a wax ak euh, comment s'appelle euh, les marchands ambulants qui étaient là-bas. Mm il leur a c'est vrai que li ngeen nekk ni jaadool mais dinañ leen dimbale dinañ leen jàppale pour ñu wutal leen. euh, un site de relogement. Mm-hmm. Mais loolu lu ñu war a saluer mm-hmm. en le faisant ça permettra à ceux qui sont dans les cantines de pouvoir faire convenablement. tontu ko mooy tontu ko honorable Bakary Diédhiou si communication mu def. waaw maa ngi ñëw. grand théâtre mais maa ngi ñëw léegi foofu. Mm-hmm. sa communication. qu'est-ce qu'on a lui reproché mais dafa dalal les marchands ambulants xamal leen d'abord ni ki vous êtes dans l'illégalité mais comme ñun ñoo leen jaboote. duñ ñu seetaan ci loolu dinañ leen utal foo xamante ne su ngeen fa demee ngeen mën a daan seen doole. loolu dal na xel. Mhm. wala dalul xel. Mhm. donc euh, ci grand théâtre bi. li ngay wax euh, li mu wax le ministre de la justice la fameuse vidéo. oui c'est peut-être une façon de dire à la jeunesse qui est là mhm. parce que yemul yemul ci j'ai di euh, au ministre de la justice defal sa liggéey. mais il en a profité pour dire aux jeune qui étaient là-bas. ni ki ñun santuñu kenn mu def naka su dul loolu est-ce que honorable en pensant que ñun dinañ ko protéger. est-ce que loolu mooy séparation de pouvoir dëgg-dëgg un ministre de la justice qui détient une vidéo envoyé ko un premier ministre. mais attendez mais euh, il est le premier ministre. mu ñëw exposé ko sur la place le premier ministre. Mm -hmm. euh, tout ce qu'un ministre doit faire mais son chef mooy le premier ministre. Mm-hmm. waru ko yëg. bu ñu waree jàpp nit bu ñu ko waree téye bu ko waree bàyyi. loolu da cee war a joxe non xam nga c'était parce que là il a donné un avis fait. il euh, la communication qui est mais il a dit à defal sa liggéey. ce n'est kii ci Pastef la bokk dafay def naka su noonu non c'est un Sénégal juste la ñu woote. dans notre projet c'est un Sénégal juste le Sénégal juste suppose que askan bi toutes les populations ont les mêmes droits. donc léegi daal ku def naka su dul noonu. Mhm. nga bokk ci ñun. wala nga bokk feneen n'est-ce pas yoon day teg sa kaw. Mhm. ah il faut pas oublier que loolu dafa nekkoon un problème majeur au niveau du peuple sénégalais dafa demoon ba askan bi wóoluwuñu woon il avaient euh, un rapport de méfiance. de non confiance avec euh, euh, la justice de, de notre mais pays mais maintenant nous si on arrive on dit un Sénégal juste euh, euh, souverain et prospère mhm. mais un Sénégal mais juste commence d'abord que... mm à ce que les Séné les citoyens sénégalais ñu tolloo ñu am les mêmes droits amuñu woon confiance ci justice mais est-ce que yaakaar nga dans ce cas précis dinañ am confiance quand un ministre de la justice envoie une vidéo n'est-ce pas qui à son, le premier ministre livre un avis defal lii non. il est-ce que loolu mooy séparation de pouvoir waay. defal sa liggéey def ko defal est-ce que xamul liggéeyam est-ce que ça veut dire que. le ministre de la justice xamul liggéeyam xamul li mu war a def. non ba Ousmane Sonko di ko wax ne defal lii. non non non il faut pas prendre ça comme ça. non c'est juste une question. non parce que s'il n'y a pas une communication. au sein d'une équipe parce que le gouvernement c'est une équipe. Hmm. une équipe vous avez les mêmes objectifs les mêmes objectifs ici faire en sorte que le Sénégal soit un Sénégal juste où les gens ont les mêmes droits. Hmm. bu kooku ne ah am nañu problème parce que aussi dans les réunions euh, au niveau du cercle du gouvernement des ministres on des temps de communication mmh. communique tu di problème bii nii nii nii moo am mais les autres ils doivent ajouter leur ki mais moom en tant que le premier ministre il régule la marche du du du kii da koy ne defal sa liggéey loolu la alors ni nga moom moo moom moo téye actualité bi. moo ko téye boo demee ci xale yi sax dañ lay naan moom mooy def la buzz mais gis nañ ko ci mel ni Bougane Gueye nu mu dalee ci kawam gis nañ euh, il y a quelques Thierno Bocoum lui également député la woon defe naa su ma juumalee ci douzième législature bi la woon ni mu dalee ci moom dem sax ba wax ne Ousmane Sonko euh, ci rapport mu am ak assemblée nationale nekkul koo xamante ne am na les capacité d'un premier ministre il ne respecte pas les institutions respecte wul nit ñi et tout ça alors tir groupé boobu commencé di juddu euh, ci opposition actuelle bi nan la leen di def. nan ngeen koy dundee parce que yaa a Bougane aujourd'hui il y a Thierno Bokoum ce qui est sûr et certain euh, dina am ñeneen. bu Thierno Bokoum c'est une opposition insignifiante. ah bon oui c'est une opposition insignifiante yow ku mel ni Bougane Gueye Bougane Gueye Dany bi nga wax. Mhm. à part la la fanfaronnade là le bruit là à le Sénégal et les télés et autres là. Mhm. fan la toj politiquement. lan la musa def politiquement ba nga naan euh, c'est un c'est un grand politique il n'est pas même plus euh, euh, peut-être percutant que moi sur le plan politique man dem naa dans un département où j'ai gagné mais Bougane fan la dem n'est-ce pas dans une élection bo gagné à part le bruit là qu'il fait à gauche à droite les incohérences de communication qu'il fait par-ci par-là. incohérence lan mooy incohérence. ah c'est ce c'est ce Bougane là qui a dit sur un plateau de télévision c'est Ousmane Sonko qui incarne l'antisystème. Ouais. après Ous euh, boo cité Ousmane Sonko moom nga ciy teg. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est de l'antisystème ou pas. Mais c'est ce même, il avait dit, bu Ousmane Sonko amee un candidat, c'est dire que c'est un candidat de l'antisystème moom day soutenir candidat boobu. lan la ñu gis à l'arrivée est-ce que dafa soutenir dafa soutenir waaw deuxième une illusion une illusion cela prouve encore que voilà que ce monsieur-là n'a pas une bonne lecture de la météo politique day tëb noonu rek di wax mais il ne maîtrise pas Euh, les rouages, n'est-ce pas, euh, de la politique au, au Sénégal. Voilà pourquoi il est passé complètement à côté. yow poli ñun nu ñu doon wootee premier tour mais, premier mais, mais, tour honorable vous pensez que dañu doon kaf donc pour revenir pour revenir à Thierno Bocoum mhm. c'est tout à l'heure euh, en venant en cours de, de route là que j'ai lu qu'il a fusillé le président Ousmane Sonko ouais, quand il dit que le président Ousmane Sonko n'a pas les capacités d'être un premier ministre xam nga loolu da nga koy waxu bu yàqu la. est ce que est que sénégalais yi gëmuñu yow mii sax di ko laaj. man je sais que sa jëmmu bopp n' pas gëmuloo ko. taxawaayu Ousmane Sonko comme ni ma doon waxee. dafa am taxawaay bu mu am ba ñu bëri jàpp ne sax. beneen sax dafay xaw a nëbb le président la le président le président Ousmane Sonko. Mhm. il a aussi aujourd'hui une réputation d'un grand leader qui traverse les frontières du Sénégal soo demee dans la sous-région et dans l'Afrique mhm. nit ñi dañuy waxtaanee le président Ousmane Sonko son leadership nga dem en Europe et un partout à travers le le, le monde la nit ñi dañuy waxtaanee le leadership du président Ousmane Sonko. il ne faut pas oublier le le travail que Ousmane Sonko a bâti en non temps record en dix ans moins moins de dix ans il a accédé à la magistrature suprême avec euh, Bassirou Diomaye Faye bien entendu mm-hmm. kooku yow boo jàppee ne il n'a pas les ki nga xamante ne moo dem wax ak askan bi ba askan bi wóolu ko topp ko lépp lu ñu wax même bi ñu ko tëjee kaso ñu naan ko ñun il suffit que nga joxoñal ñu kenn nest pas ñu topp ko su ma joxoñoon man mii Bakary Diédhiou à l'heure là je président de la République kon kooku boo nee il n'a pas les capacités pour être un premier ministre waxu ju yàqu la joxoñ nit ñu fal ko après nga ñëw au pouvoir euh, ñu nommer le premier ministre nga war a am Euh, beneen taxawaay boo am. ban taxawaay la ban taxawaay la war a. est ce que yéen da ngeen a bëgg le président Ousmane Sonko noppi. non une question est ce que non waxuñu Ousmane Sonko. mais wax jooju wax jooju mu doon waxal askan bi. est ce que moo ko andi tey ba fii nii mu jël nguur gi n'est-ce pas. est ce que du taxawaayam lañ xeex par rapport ak euh, premier ministre. parce que bon les autres ils tentent ils tentent de faire ils tentent de faire de de l'opposition ils tentent de faire de l'opposition mais en le faisant. nañu wax loo xamante ne lu yenu maana boo nee le président Ousmane Sonko n'a pas les capacités intellectuelles kenn du la déglu tu cherches du buzz. Les capacités d'être premier ministre. Non, mais écoutez, mm -hmm. il, il, celui qui, a, aspirait être le président de la République, ci deux mille euh, deux mille lan de dix neuf mu amoon quinze pour cent tey mu ñëw ba fal un président au premier tour ki nekkoon dans l'opposition kooku on va douter de ses capacités on va se mettre sur une table ronde pour pour réfléchir sur les les potentialités de cet homme. Mhm. wax ju yàqu la. bon maintenant je est-ce que je comprends je comprends les les Thierno mhm. euh, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mhm. mais malheureusement lui aussi il se perd et je sais que le temps file en sa défaveur. mais est-ce que euh, honorable Bakary Diédhiou taxawaayu Ousmane Sonko euh, tey yaa ngi Anse Bernard suba yaa ngi Colobane ginnaaw suba yaa ngi feneen est-ce que du porter ombrage ki nga xamante ni moom mooy. euh, le président de la République Bassirou Diomaye Faye parce que beaucoup pas beaucoup de gens se posent se posent des pas du tout ko fenn dégguñu loolu tax na non président ñu ngi koy dégg mooy doxal président ñu koy dégg mhm. n'est-ce pas mhm. euh, le premier ministre day wàcc sur le terrain Euh, constaté de vue sur problème yu taxoon mu dem foofu. Mhm. yow par exemple Ange Bernard yaa ngi wax. comme ni ñu waxee sànq Colobane. yow tu penses que jaadu na un groupuscule de personnes. ñuy accaparer wu le littoral nest pas di fa jënd seen immeuble di fa tabax. Mhm. ba de sorte que yow soo bëggee dem féexlu ci géej bi n'est-ce pas yow doo am accès. Mhm. vous pensez que loolu c'est normal dafa am domaine boo xamante ne kenn waru ko laal. Mhm. c'est du domaine c'est du ressort euh, du domaine public. ñépp ko bokk. kon su dee ñeneen par leur position dañu jël ay dogal yoo xamante ne jaaduwul il est du ressort du nouveau gouvernement ki nga xamante dafa woote rupture. dafa woote jubal n'est-ce pas mu dem foofu pour dire que lii nu ñu ko defee woon jaaduwul. il faut que ñu war ko arrêté. waaw mm-hmm. mais je pense que loolu ñëpp a war a tàccu. balaa nga xam loolu en période de canicule. nga bëggoon a dem féexlu n'est-ce pas du côté de de la mer là. Mm-hmm. mënuloo accéder. je pense que je pense que ça tout le monde tout le monde l'a salué. tout le monde doit saluer oui. c'est ce qu'il est en train de faire il est dans son rôle il est dans son rôle gis nga Ousmane Sonko. yéen mm. de la presse. ngeen am de quoi aussi euh, écrire ngeen am de quoi commenter. Ah, il fait l'actualité également les mois. il fait l'actualité vis-à-vis de cette presse là dont vous parlez avec euh, euh, la suspension des conventions avec la presse est-ce que également yenn mesures impopulaires yi nga xamante ne da koy jël. quelle mesure impopulaire. la presse ah, des conventions il ne faut pas parce que yi tamit honorable ça il faut le dire. est-ce que est-ce que c'est comme ça que qu'on doit gérer les ressources de l'État quitte même jusqu'à s'attaquer à la presse parce que gis nañ ni mu waxee woon. non mu demee grand théâtre tey jii avec les conventions si on veut tout remettre en cause. Euh, euh mhm. le président Ousmane Sonko. Euh, la presse qui s'offusque. Mhm. mooy ñi nga xamante ne nekkuñu ci réglementation. mais koo xamante ne n'est-ce pas da nga am son sa sa convention en bonne et due forme. Mhm. tu n'as pas à t'inquiéter. mais yéen votre milieu la on doit assainir ça. vous pensez que vous êtes un pan à part dans la société yéen de la presse.

pour defar nit wala pour yàqal nit vous pensez que vous avez le monopole de la vérité non <laughs> demeewul noonu su ngeen defee naka su dul noonu on va vous dire que non ce n'est pas parce que vous êtes la presse que vous allez sur surfer dans l'illégalité quand par exemple certains euh, patrons de presse ne sont pas contents parce qu'on leur a dit de payer les impôts mais tu vois des gens avec des milliards qui payent même leur euh, leur employé ay salaire yu néew ba pare ñoom euh, lépp lu ñuy gagné n'est-ce pas ci seen pose la jëm. am ay milliardaires dans le milieu de la presse. ah mais euh, nous avons entendu quelqu'un celui-là qui a dit que. un voleur vaut mieux que xaw ma lan ko menteur. je sais pas. ah non moi je n'aime pas le nommer là le le gars qui n'est jamais allé à une élection là et qui pense qu'il est un grand politicien c'est Bougane pour ne pas le nommer ah. il parle comme ça il dit que oui il a xaw ma lan des milliards vous avez entendu ce qu'il a ce a dit comme hmm. soo amee milliards. Euh, on dit que tu ne payes pas des impôts kon milliards yooyu yaa ngi koy amee ci njuñ njaaj mhm. parce que boo doon fay mili euh, peut-être que euh, impôt correctement peut-être que doo ko doon am walla mën nga ko am mais dans la légalité mhm. mais ñoom dañu leen redresser redressement fiscal ñu gis ni ki ñooñu du ñu fay impôt ñu bàyyi leen noonu mhm. Walfadjri est en train de se, se régulariser nest pas gis nga fii ku def naka su dul noonu ce n'est pas chantage bi nga mun a defal le président Ousmane Sonko ku war a fay impôt da nga ko war a fay. Hmm. ku fayul impôt saa waay euh, même quel que soit le discours élogieux que tu tiens à l'endroit de Bassirou Diomaye ou du président Ousmane Sonko di ça n'empêchera pas ñu naan la eh saa waay yow ko da nga war a fay. impôt impôt boobu askan bee ko moom. alors na ngeen fay impôt. les enseignants nous autres le milieu des enseignants là, <laughs> avec des salaires euh, plus ou moins. Euh, on paye des impôts. c'est quelques-uns quand même am na ñuy fay. Ah. am na ñoo xam ne waaw ñu fay euh, voilà ñi yow ñi ngay dégg ñuy wax. Mhm. mooy ñi nga xamante ne dañu ne ñoo ñu fay ñu impôt. muy moom mooy euh, Ndour Faye la la dame là et autres. alors mais il faut qu'il a on a visité euh, sa page Facebook dernièrement également à travers la presse gis nañ question écrite yi nga xam ne yaa ngi koy adressé le gouvernement. euh, c'est assez courageux quand même parce que euh, vous êtes du pouvoir député euh, du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nekk actuellement le groupe parlementaire au pouvoir n'est-ce pas nekk à l'Assemblée nationale question écrite yi xaw na bëri loolu lu muy tekki yi ngay bind di ko multiplier di ko partager à travers les réseaux sociaux à travers euh, euh la presse est-ce que ça veut dire que à la base Euh, ci ngay fas yéene di bind ci éducation bi gis nañ nga wax ci environnement tout ça. waaw mais je, je merci et c'est curieux de de voir que. Ouais. vous visitez. Euh, voilà voilà c'est une manière de mettre la pression à votre gouvernement. non attendez. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il concrètement je dis hmm. d'abord je, salue le fait que euh, vous êtes curieux jusqu'à visiter ma page là. Mmh. ça me fait plaisir et je vous invite à y visiter de temps en temps comme vous l'avez ba constaté ni ki ñun dañuy jégleel des mm. questions écrites au gouvernement oui mm. xam nga loolu ci rôle parlementaire la bokk mm. le parlementaire ce n'est pas seulement ci moment de travaux de commission ci moment de plénière ci moment de session extraordinaire mais le parlementaire aussi dafa war a jël ay initiative euh, privée n'est-ce pas di interpeller le gouvernement parce que moom c'est le représentant du peuple au niveau de l'hémicycle mmh. di bëgg a contrôler la politique de l'exécutif ñun ci rôle boobu la ñu nekk nous nous sommes des députés du peuple mmh. ce n'est pas parce que ñun dañu bokk mhm. ci la euh, euh, les nouvelles euh, le nouveau pouvoir le nouveau régime ouais. que du ñu interpeller le gouvernement dans la marche du du du, du pays non mmh. il y a séparation des pouvoirs l'exécutif ñoom ñu ngi jouer seen rôle ñun ñu ngi jouer suñu rôle mhm. maintenant man en tant que élu du département de Bignona du Bignona d'ailleurs kese laay waxal. Mhm. mais également euh, je pose des questions yoo xamante ne qui concernent euh, le Sénégal dans sa globalité parce que ñun on s'est dit que le Sénégal est notre engagement. Mhm. et Bignona notre priorité. Mhm. de sorte que lépp lu ñuy def dinañu waxal askan wi de manière globale. waaye fu ñuy jeexalee mooy le département de Bignona ñu gis ni ci département de Bignona am na ay problèmes yoo xamante ne dañu war a soulever problème yooyu laaj ko. Euh, gouvernement bi lan la ñuy xaar waa wala wala lan la ñu fas yéene def pour saafara problème yooyu yaa ngi wax les les questions écrites waaw bind naa ay questions lu mel ñu de ci ministre de l'agriculture mm-hmm. di ko interpeller par exemple sur le barrage d'Affignam mm-hmm. mu nekk barrage boo xamante ne yaakaar naa ni yow peut-être que moment boobu juddoo ko parce que c'est un barrage dont la pose de la première pierre est faite je crois quatre-vingt-huit comme ça mm-hmm. hein ñu ñëw les travaux commencé vers 94 euh, comme ça. 96 hmm. ñu am une crise en 1996 ñu am une crise diplomatique entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Hmm. les Chinois retiré wu. Hmm. n'est-ce pas depuis que les Chinois se sont retirés les travaux sont restés ainsi. bon je crois que la ñu wax réhabilitation du barrage d'Affinia. mais ci loolu. le barrage d'Affinia mu waroon a nekk. Euh, euh, comment s'appelle un paradis. bii tax ñu développer la riziculture parce que dans la conception du barrage dañu prévoir prévoiroon ñu tabax ay ouvrage annexe mm-hmm. yu war a tax ñu def irrigation ñu war a tax ñu téye ndox mi pour faciliter la riziculture mm-hmm. mais bi chinois yi retiré wu état du Sénégal ba léegi dafa seetaan euh, comment s'appelle euh, le barrage la mm-hmm. ba léegi ce barrage la ne fonctionne pas mu jur lu bëree bëree bëree bëree bëri ci askan bi lu mel ni l'espérance de vie même en pati Mhm. parce que tout simplement ñun dafa nekkoon un marigot très poissonneux les gens s'alimentaient sans problème léegi avec le barrage la mhm. toute la faune aquatique la a disparu mhm. amuñu jën lu mu am aussi euh, l'écosystème foofu laa profité d'ailleurs sax ma adressé aussi une question écrite au ministre de l'environnement l'écosystème bi waroon a protéger euh, je euh, la la zone. Hmm. bi waroon a tax aussi les poissons ñu mën a def reproduction. mais écosystème boobu dafa de bu ñu waxee écosystème mooy garab bi n'est-ce pas hmm, la hmm, mangrove tout ce qui est là mais loolu yëpp dafa deñ cadre bi quoi. maintenant boo demee vers les mois avril mais juin. mais askan bi ci zone boobu mais dañuy sonn parce que y de la poussière. mais poussière boobu dafa ànd ak xorom. dafay ñëw euh, parce que foofu les constructions les habitats. si c'est souvent ay zinc. mais bu ñu ñëwee posé wu souvent facilement day occasionné euh, yàqute ci euh, les les les tôles mhm. la. la rouille. Mhm. donc ñu interpeller lu gouvernement ci loolu lu mel ni également les forêts en mhm. la coupe abusive du euh, bois en Casamance foofu. on d'accord d'accord la coupe abusive du bois. ñu gis ni dans le long de la frontière avec la Gambie. mais ñu ngi exploiter no fo nos forêts de manière abusive ñu gis ni également. bu amee euh, feu de brousse boo gis les services assermentés de l'État ñu war a taxaw n'est-ce pas fay euh, feu de brousse bi mais ci loolu yëpp bëri na ay question lu mel ni la boucle di faux ñi ñi interpeller le gouvernement pour naan leen mais lii lan ngeen xaar pour saafara ko et aussi une question nationale où on a interpellé le ministre des des finances c'est par exemple euh, les rappels des salaires des enseignants contractuels une injustice boo xamante ne nit ki nga yoreel ko xaalis pendant des années nga ñëw di ko fay xaalis boobu nga wa au lieu que ça nga defal ko peut-être que bonus mais nga jël une très bonne partie sur la base de l'impôt ci xaalis boo xamante ne yow yaa ngi ko yoreel nit ki. Mhm. nga téye ko pendant des années alors que moom su ko teeloon a jot xëy na dina mun a def yeneen réalisation mhm. nga ñëw di ko imposé foofu la ñuy wax monsieur le ministre des finances mhm. ñu ngi lay ñaan nga fay salaire euh, rappel yooyu ci émission spéciale su ko defee nga bañ a appliquer certains taux. Euh, merci merci Bakary bëggoon naa sax ñu gën a yaatal euh, les questions écrites mais malheureusement temps bi jeex na merci. Mais merci aussi. Euh, voilà, merci beaucoup. Mm-hmm. Je dis que nous sommes vraiment contents de mmh. votre invitation. Mmh. Alors, dire que nous, on est là disponible à parler pour le, le bien du peuple sénégalais. Mm-hmm. Et c'est également un très grand plaisir pour nous d'être là. Et de la santé également, de la Grême, Bakary Diadjounek, député PASTEF euh, du parti au pouvoir, n'est également membre du groupe parlementaire Yewi Askanui à l'Assemblée nationale. Mboki, nous l'avons dit, nous l'avons dit, fii ci Sénégal 7 jëf Merci.